waaw damaa ñëw rek euh, ngir dooleel si sama mbër quoi Eumeu Sène laa bëgg waaw mu daan Bombardier jël bu set wi. loolu wax la rek mbër boobu day wax rek moom xam na ay balam jeex na mag la xam nga plus de ko am 45 ans dañuy def jugement rek mais màggat na Bombardier moom moo la gën a xam ne combat bi amu ci leen bu xeexee day daanu bu bëree day daanu Eumeu Sène ko man mag ak xale la du benn quoi man loolu laa gis waaw. pour man combat boobu ni ko gars yi gisee du demee noonu ni ko ñu bëri di xalaatee yaakaar ne Eumeu Sène day ñëw di négocier si combat non non gëm ne Eumeu Sène bi suuf lay day si kawam te dana koy duma daan ko incha allah man gëm-gëm boobu laa am daal te loolu gis sama mbërit euh, waaw ñu ànd ak rek xam na affaire bi foo la agré maanaam ndam bi jënul Sénégal daal ñu ànd ci ak respect rek ku nekk jox sa morom cër parce que boo ci ku ci gaañu du mbër lay faj say waajur rek ngay sonal affaire yooyu kon daal ñu ànd ci ak dal daal man loolu gis quoi man la Pape la ñu naan ko Père Tyson. moo tax ma ñëw fi. ogin presse ëmb seen bi. Bombardier daa am lu mu ñuy yoreel. te moom xam naa nag bu tëddee sax xam na ne am na lu mu ñuy yoreel. roi des arènes bi si ñun la ko jëlee woon. te ñun waa Pikine dañoo ñëw pour doole ëmb mu ñëw récupéré waat ko andiwaatal ñu ko Pikine. si ñun la ko jëlee woon farfosse bu ñëw dañ koy foqatis na ñëw yaru rek joxaat ñu ko ndànk rek ah. moo gën a xam. combat bi cinq minutes moom cinq minutes li si xew dina si xew waaw. lan ngay wax léegi euh, ci li nga xam waa Pikine boo xoolee bi demee xam ne ñu fair play la fair nañ boo xoolee stade bi nii rek nu mu ni taaroo nii rek nga xam ne ñu dañoo fair play dañu tamit dañoo bëgg suñu bopp ñun kenn xamee ñu yàq kenn xamee ñu daal lenn lenn kese moo mën a am ñëw jël ñu soxla ñëwaat Pikine feete ko mu jeex waaw. feesal stade neexal ko yëngal si kaw Eumeu yëngal suuf ñu jël li ñu soxla dem suñu yoon te loolooy am sax incha allah rabbi waaw. Bal ñu fàttali ah. waaw pare nan moom. ci lépp nag bomb lu mu bëgg rek pare nañ ci pour fekk si ko ci. dina ko leer ne Eumeu daa am bor bu mu amee waa Pikine te bor boobu Eumeu danu koo war a fay am leneen lu mu war a waaw liggéeyaat leneen loo xam ne droit des arènes kese. te su ci paree ci Bombardier la ñuy xam ne Eumeu Sène mooy kan ndax da di champion ku lu mbër laa la wax Eumeu Sène mooy sa champion te bu paree ci Bombardier lañ koy doog a xam gars yi nangu mais daan nangu nag ci Bombardier la ñuy xam ne kan mooy Eumeu dafa mën a bëre te dafa am doole te Bombardier taxu koo jóg dafa soxla roi bi da koo soxla moom Eumeu du piki na ko soxla de moom moo ko soxla dana leer na Bombardier bu tëddee xelam na nekk ci ne ñàkk na roi bi samedi incha allah waaw su tëddee jëru mu koy fanaanoo sax. ci lan nga yaakaar yow la combat bi nar a jeexee ci dóor wala ci bëri. xam du xeex ak day bëreeg bombardier te làmb laa bu heure bi ne prip ëmb du arrière benn pas ci kaw bomb la jëm su bomb ñëwul da koy fekk su ñëwee dañuy daje te làmb laa lay ba heure bi suuf la samedi allah ci kàttanu yàlla ëmb dafa mën a bëre te dafa am doole dafa soxla làmb ji am lu ko làmb ameel te dafa war a fayeeku ci loolu ci bomb la koy jëlee nag pour mën a fayeeku lim ñàkk ci làmb. waaw man maa ngi tudd Adrien quoi. waaw dañoo ñëw seetaan suñu champion suñu mbër xam nga te xam na ni préparé de roi des arènes rek waaw loolu la. waaw combat bi ñu koy paree ci bépp boor. osé aisé pesé ñëw am jël victoire bi rek dem suñu yoon. non loolu noonu waxoon na ko perdre ko ñëwaat nañ te RTS moo tegoon làmb ñu perdre ko RTS koy tegaat mu perdre ko ak ñii. combat bi daan a terminé jeexee combat rapproché lay doon dañ koy jege dóor ko mu fay ñu jaar si falan yi daan ko. Euh, mbirum fair play bi euh, mànkoo bokku ndey ak xam ne sport la bu jeexee jeex na ñooy ànd ñibbiwaat ndam li génnul Dakar rek génnul Sénégal daal waaw ñun ñëpp ñoo far te xam na ni am na slogan bu génn wax amul la xaara àlla stade amuñ duñ fa yóbbu wax xaara àlla rek wax amul xaara àlla kese wax amul xaara àlla Ismaïla Sarr laa tudd Ismaïla Sarr. waaw combat bi ñu ngi koy waaj waaw ñu ngi koy waaj ñu ngi ko war a waajee ndax Pikine dañoo xiif roi bi waaw te ëm gaynde la du daw du doxal Bombardier nag maa ngi koy dénk ñaari kàddu na taxaw dëggal boppam suul tànkam yi te ñeme jam-jam xam ne ëmm day dox si kawam incha allah du yomb. si loolu jaaxaluñu loolu ñun jaaxal ñu ko waa incha allahu rabi ñun buñ ko jàppee dañ koy daan jéggi dem ñun Pikine lañ gëm duñ daw ko waa duñuy ragal waaw Bombardier sa kaw. waaw Pikine moom bis mënul rëy ci ñoom quoi vraiment Eumeu Sène man gis naa ko quoi mi ngi ci état physique bu doy waar quoi vraiment man jàpp naa ne daal nekkul naa ah, Bombardier mooy téye Eumeu Sène quoi vraiment ma li ma gis ci moom quoi état physique bu doy waar quoi vraiment. waaye sondage yi bombardier la ñu def favori moom moo nekk roi des arènes waaye également moom moo daan ki nga xamante moom moo daan euh, Eumeu Sène mu nekk yow lan nga ciy wax. waaw c'est normal ko favori parce que moom mooy roi des arènes quoi moo yor couronne bi moom moo yor li ñu soxla quoi te incha allahu rabbi bu samedi bu samedi bu samedi te incha rabbi bu samedi ci la ñuy xam kan mooy Eumeu Sène quoi vraiment bombardier nekkul ne moom mooy téye dinañ xam ne moom kan mooy xam Eumeu Sène quoi Bombardier nekkul moom mooy téye Eumeu Sène barke Sëñ Tuuba man maa lox loolu. lan nga a jeexee ci fépp du jeexee ci dóor moom. ci dóor ci bëre lay jeexee quoi parce que Eumeu Sène bërekat la da koy bëreloo da koy bëreloo force di ko bëreloo di la ko daan man maa lox loolu. yow yow xam Eumeu ma dégg ñu ne Eumeu ci ci la gën a ay yow lan nga ciy wax yow. waaw bien sûr parce que boo xoolee Eumeu Sène ñi muy daan ñëpp boo xoolee ñoo ko bu masse quoi mais est-ce ko bu doole Eumeu Sène néewul doole de sa waay Eumeu Sène jàmbaar la te bat bu samedi di nga naan waxoon naa la ko dina daan bombardi jël bu rëy incha allah couronne bi incha allah day ñëw euh, Pikine te il est temps quoi vraiment voilà. man jaara laa tudd. ah Eumeu Sène moom fi indi Seydou Khoudia Khoudia sama xarit sama waa. waaw. waaw ah. waaw on est confiant de waaw jàpp bëre daan ñibbi rek Eumeu Sène rek du ay jaaxaan du ay fo wóor na yàlla ndam rek yàlla na ko yàlla may ndam incha allah dañoo bëgg mu am ndam. <laughs> ah loolu la foog rek loolu la yaakaar xolo dañuy ñëw foqati ko téye ko sunuy loxo romb ko jàll. Ah. bëreeg dóor lépp lu ñu woo ñu wuyu ko ëmb fépp la mënee. sunu mbër ñun dañ ko wóolu de dañoo am ci moom confiance dañuy bëre jàpp daan ñëpp waaw dañ koy daan de bu neexee yàlla incha yàlla na ko yàlla def. lan violence ci affaire yooyu non moom baaxul violence moom day yàq làmb violence moom nañ ko bàyyi vraiment. waaw man la David Mbaye waaw ñëw pour supporter Eumeu Sène rek ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam. mu nekk également waaye daan ki nga xam ne moom moo jël ko euh, ki nekk euh, Bombardier. di koy wax mu dal rek tey def ndànk parce que tamit Bombardier aussi du n'importe qui pour mu dal rek yàlla may ñu ndam daal parce que Pikine daal ndam lañ ci soxla incha allahu rabbi. non du yomb nag mais l'essentiel na dal rek na dal tey xool li Bombardier andi mu fekk si kasi rek yàlla may ko ndam daal incha allah. non du xeex ëmb tamit woolu nañ ko si xeex macha allah bu laajee xeex ñu xeex ak moom bu laajee mbapat ñu mbapat lu mu laaj daal ñu jox ko ko rek mais l'essentiel yàlla na yàlla andi ndam li Pikine incha allah. man na gaaw man na yéex waaw xam nga. ah Germaine nag franchement moom minute yi moom duma ko mën a xam mais daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ko ndam waaye. merci beaucoup waa Live TV sa kaw sa kanam. merci man maa nekk David Mbaye waaw sëru jàmm David Mbaye waaw. damaa nekk doomu Pikine laa juddoo Pikine yaroo Pikine maa ngi Pikine donc il faut lii mu il faut ma seet si ko daal waaw mu noonu. am na si yaakaar lool dañ ko dénk sëñ Babacar rek yaa na ko sëñ Babacar may ndam ci barke Yonent bi waaw. rek waaw deux minutes rek. dóor ba daaneel ko yëkkati ba si kaw doo si waaw. Kilène TV bi kontaan naa ci euh, laa tudd nekk président commission sport bu Pikine Nord nekk Pikine waa